wax yéen. bàyyi ji li bëgg na ñu ngi nii di waxtaan rek ñun ñoom namm lamb bu bëgg combat. moo ñu taxaw amaguma combat de wax dëgg man lamb. mbër yi nga xamante ne ñoom laa war a bëre rek ndax man moom booyee buñ fi desee ma xaar. wax dëgg yàlla. manuma daan booy yëpp. ñaar ñii di bëre grand combat ñaar ñii di bëre buñ paree nan xooli seen yoon ma xooli sama yoon. jëm kan pour ñu lay seetaan mën a xam. mbëri ma war a may chance ñoo ma war a may chance. ñan ñoo lay may chance. ñu may may chance. man boo boo bëggee dégg-dégg mooy mbëri nga xam ne dañ ne dañoo am doole du ma fi ne rek di tudd. amuñu tur mbëri amuñu non du ma fi tudd benn mbër. mais caatu ngewel mu war a bëreel ñëpp xam nañ ko mënumaa jeexal sama morom bi ma daan ba tas léegi nag jot na pour gars yi may ma chance ma wane suma bopp tamit. Modou Dia. daajeele. sant alhamdulilah. waaw maa ngi sant bu baax. bi nga ñëwee la. fan nga nekk. waaw waaw maa ngi suñu rek maa ngi si li ma nekkoon rek di maintien quoi. producteurs ñu lay contact. waaw am na ñu ñuy waxal quoi. waaw lan lay wax. non nañ xaar rek. koo ci làmb ñal la. non nañ xaar nañ xaar nañ xaar. incha allah maa ngi xaar daal maa ngi déglu bu sottee rek alhamdulilah. sant bu baax. naa sant bu baax maa ngi nii nekk samay entraînement waaw. di wax na Liss Ndiago ñëw ñu bëre dugg naa jaama gën damm fa loxo tànk laa fa bëgg a damm. tànk Liss rek nga yaakaar ne moom. Bamba bu ma jëlee ma damm tànk bi bu ma dammul tànk bi du ma ko bàyyi du ma ko moy maa ngi ñoom fii ba géej gi refer maa waa jaama gën. maa pànk ci géew may ma <laughs> maa la xam mbër ziar naa. xool yàgg ziar nañ la champion maa ngi am jaamu bu maa ngi si jaamu bu baax a baax a baax. ñu ngi pare di toog di xaar rek. waaw ñu ngi xaar combat. non combat ainsi ñu ngi ñuy contacter quoi mais ainsi mënaguñu wax quoi dañuy toog rek. waaw promoteur ñu ngi des. promoteur ñoo lay contacter benn ñaar ñett wala ñeent. ay ñaari promoteur ba ñett quoi. mais ñaari personnes yu ñu ooyee wax nañu Ziza quoi. Ziza waaw. bu Pikine bu waaw. mu ngi si nag. mais nag noonu la moom bu paree pour ñu bëre rek. man pare naa quoi ndax lamba ji du ñu xaar quoi ay xale lañ ndax an moo toog bëree rek da ngay tardé quoi waaw ñu ngi xaar. ziar naa la. maa ngi ziar bu baax. bu bëri alhamdulilah. doomu yoo daa bëri doom. yoo moo doom ci àdduna. maa ngi doomu yoo doomu mu ngi nii. sama yaay kañ le 18 décembre incha allah Modou Baye Fall. kii Kélé Masor Sidi di jàmm gën Clémento. waaw waaw maa bëri spécial bi Mahmoud Baye Fall. dina ne. ragal sama yaay. nee na kuuru Baye Fall. sama yaay ngi tànk bi la téye waxal moom Kia. sama yaay Kia ngi moo téye tànk bi. barki Serigne Bamba. Kia man lan laa a xam amateur nga. wala supporter nga. wala yow lan la. man man laa. dund lamb. waaw bu baax sax. dama lay gis ci waaw da nga may gis parce que dama bokk ci lamb am ay xaritu mbër am ay doomu mbër moo tax kuy bëre ma ñëw parce que dimanche ba dimanche ay am jot dimanche ma deful dara damay ñëw seetaan si lamb. ñaata doomu mbër nga am. bari na bari na lamb jëpp may seen yaay. man la 75. ëpp ji ñëpp may seen yaay mbër yëpp. ah mbëri ikiri yëpp kii mooy seen yaay. kii mooy buusi. roxi dabi. jàmm gën et tout mbër yëpp maay seen yaay. non non non di tout dañ may dooleel sax mu ñëwee stade sax ñu naan maan doo dugg fii doo jaar fii rek mbër yee jug dooleel ma damay dugg par force. e ne delloo li muy defal mbër Yoff autorité du ñu ko defal dëgg moo neex yàlla man maa doomu Yoff li mu ñuy defal autorité du ñu ko defal moo ñuy jëlal carte defaral ñuy disa jëndal ñuy bie te du autorité kon autorité nañ ñu jàppale kii yaa jaaraama kii ñu ngi lay gërëm bu baax.